soo xoolee boobu ba léegi dañ leen a bàyyi euh, parce que xam na ni jotaay yu mel nii ak animation yu mel nii namboon ngeen ko moo tax nu bàyyi leen ngeen def nu leen neex ba ngeen malee nu leen neexee. seen tur ak seen sant di rafetlu jotaay bi di rafetlu teewaayu kenn manqué wul macha allah ci commune ñëpp ñoo ngi teew ginnaaw ba ñu toogee lu yàgg loo xam ni jotaay bi. ñoo ngi sant yàlla comme nu defalee sutura nu am njiit. lu am matukaay gu mel ni président Macky Sall bi nga xam ni ba Covid ba feebar bi amee ci Sénégal taxaw na fi taxawaay gu mat sëkk ba tey jii Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ni ñoo ngi leen di naw ci ni taxawee pour jàkkaarloo ak jàngoro ji kon gàcce ngalaama président Macky wax réunion namante la réunion waxtaan la réunion sottante xalaat la waaye réunion ay soppe la réunion jàmm la réunion àndandoo la réunion bokkandoo ndey bokkandoo baay yëkkateendoo tegandoo bëggoon cër bi nga xam ni teg ngeen ko suma loxo ma jël ko ci jotaay bi nga xam ne ci la nekk muy jiite réunion bi ma teg ko ci sunu mag le conseil spécial du président Assane Baye mu jiite réunion bi bu ko defee képp ko man nuyoo nuyoo bi nag dafa am lu koy jiitu mu di sant ñu sant yàlla bu baax comme ni ko usmaan waxe ay weer ngi nii lii munta nekk yàlla mi nga xam ni moo ko indi woon ba téye réew mépp àdduna bépp sax wax ba kenn munta gise kenn munta waxtaan kenn munta def fenn loolu moo nu tënkoon

bu Kébémer di Ousmane Cissé di sama rak ma koy gërëm ci cër bi ma jox su ma ko joxul woon duma ko laaj waaw waaw li tax du ko laaj mooy man ku ma xam xam ne man ku may àndal damay ànd ak yow ba mu jeex dama ko ni yow sama rak nga noo bokk dëkk bi nu séq lu bari na bokk dëkk bi waaye Macky Sall gémmiñam sama nopp mu ni ma dama bëgg nga jàppale Ousmane ca dëkk ba am na ñooñ sax dañuy jaaxle ci ni may bàyyee jóguma ca kaw man du ma ànd ak nit di ko fakkasal ci dëkk bi lañu dëkk man nañ fee ànd dëkk fi kenn ku ne taxaw am nga fi bokk am fi xarit waaye loolu gënul ci ñun cër buñ la ko joxee danga koy xam mm-hmm. ndax bu nu bokkee dëkk bi mu jox ma cër bi mu ma jox ah ni ma koy defar rek laa mën a def waaye nag yàgg nañ ci terrain politique bi yàgg nañ fee dox xamante nun ñëpp bokk dëkk bi kon bu la nit defalee teraanga danga nga ko caa war a gërëm sant ko ca bu ma ko jox loon duma ko ko laaj ndax dama ni man duma xëccoog yow ndax xam na nun lu ñu boole yàgg na kom nag dund xëccoo li fi nekk waxtaane ba juboo doo nga fi nekk loolu laa wax nit ñi nee naa leen lu ñuy xëccoo am fii lu ñuy waxtaane bu juboo fi ne Ousmane maa ngi lay gërëm ci cër bi ndeysaan ndax kenn ku ci nekk ci ñun ñi toog ci taabal ji mën nga ko jox li mu wax ndax ku ci nekk taxawaayam mate na ko muy jigéen ñi fi nekk ñépp ak góor ñi fi nekk li ko dale ci Ibrahima jàll ci taxawaayam ak yàggam ci terrain bi mhm. may na ko loolu jéemee toog may na ko loolu bu Bousso ba muy jóg cëram ci dëkk bi ak meram may na ko loolu jigéen ñi fi toog li ko dalee fii ci sama doom Binta Kébé ah, kenn du ko waxaat ci dëkk bi ah, ak nu fi nekke mënoon na ko yor xani fay ah, di sama sœur mën na ko yor sama jarbaat asloo mën na ko yor Wow, Anta job sama rak nu bay man nako ko yor bëgg lu baax nga ni droit d'aînés maa leen mag wax na kon maa ngi la ci gërëm li nga xam ne dajale ñu wax bala maa sori bët day fàttu parce que mbayka ah aroon na mbayka bo di suñu mag di mag mu baax li tax ma ni mag mu baax dafa yemul ñun ci politique dafa yem ak ñun ci politique féeta nu ci mag di ñu demal di ñu waxal fuñ dul fekke mënal lu lu ñu mënal suñu bopp kon mbayka maa ngi lay nuru nuyu bu baax di suñu mag di nuyu Amadou Sow waaw di ku engagé. balewul dara ak i wax. xam naa ko bu baax. di nuyu jeunes yi fi nekk yëpp. ñoom Assane ñaak ñeneen ñëpp maa ngi leen di nuyu. Ah, di nuyu sama jarbaat. ak suñu sœur yi fii nag waxtaan wi waaw Ndoye sama jarbaat li ko li Ousmane waxe ci nekk ndaje mi ndaje mobilisation la ndajem nemmi konte nammante woon ndajem soññaat suñu bopp du gàtt ci terrain bi loolu mooy ndaje mi di waxtaan waxtaan ndax kadior nang nañu ku lek bàyyi leen waaye nanguwuñu ku deey bayi len motax fuñu tollu ñu bëgg tok di waxtaan di diiso lepp par étape par étape luñ ci wara yegg rek buñ ci yeggee ñu taxawé té ñun ñëpp nañ ci wara a comme nak Ousmane dani ah ma présider réunion bi dama bëggoon ah ñu joxe kàddu yi bu ko defee ñi nga xam ne ñi ñooy jël kàddu ñu wax ah ouverture bi nga xam ne bii war na cee am n'est-ce xam naa dana guddi waaye comme dañoo namante woon du ñàkk ci jigéen ñi ki nga xam ne kii moo am ndomba tànku député à l'Assemblée nationale di Aïssatou Diallo ñu rek ñu jot ko Khadijatou a Aïssatou Diallo xani jotu jàllo bu baax waaw xani ñu jox ko kaddu bi mu dugal ci ay kaddu incha allah ñu ko fi asal mu ni ñun ay républicain lañu voilà merci aouzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim asalaamaaleykum mbooloo bi ñu ngi leen di nuyu ñëpp ku nekk seen ak seen sant leen ziyaara bu baax di leen baal ak di leen baalu ak di sant yàlla di ñaan yàlla aussi ni ñu rëccee ci mbas mi ñu ñaan yàlla ni si yàlla moom yàlla leen yàlla yërëm yàlla ni ñu ni ñu bi yàlla ñu yàlla Bambas bigyan si Adla Bagyata. O niya po dialuwat program. Siyempre ka ni, dagkala, bambas mi mo ya mo doon adam ay muni yung muni yung waya ka yang telefon yung mi doon Yag yag mom, kaya won yag ninyi, sapo ninyi, pala ninyi. yang jape won akpan mi dem, lalan yan jape batay duñu changé yota pour ñu fëgg da ñu gis nous ñu woo da ñu jot li des mooy dafa am ci échéance yi ñu jëm du présidentiel du législatif mais local la li ñuy woote rek en premier mooy unissons-nous pour le changement de notre commune unissons-nous nañu booloo ndax ñu mën a changer suñu commune président de la république nous mu fiy dugal ñu xam na lan la ak lan ak ak ñan unissons-nous pour l'émergence de notre pays unissons-nous pour l'émergence de notre commune boobu ba léegi ñu ngi naan PAP 2 PUDC ñëwagul commune li koy war a mooy ñu booloo ñu mën a jël commune bi teg ko ci loxo président de la république li ñu sonal leen rek la heure bu ñu demee ñëw ñu ne Kébémer moom du ñu gañe dara nañu ñaan yàlla barki timis bi ak nootu bi yàlla nañu yàlla may ndam yàlla bu ñu sëgg suñu kanamu nawle yi bi li ñu bëgg yàlla nañu ko yàlla mayal jërëjëf. ci juddu bi laa la woo Forty Kebener Anawa Ampere Kebener Anawa Ampere Ana Sope President Ahmad Sali Ana Sope Usman Sise Ana juga Tonton Akan Ibrahim Jallo Ana Sope Hadiwa Alifai yëf yi daje na est-ce que kontaan ngeen est-ce que kontaan ngeen est-ce que bëgg ngeen incha allahu rabbi lii rek la ñu bëggoon APR Kébémer bokk ndey bokk baay ana ñu sopp dëkk honorable député Khadijatou Diallo ñu ngi kontaan léegi ci waxam macha rabbi di nuyu ñi ma àndal Mame Mary Diané di nuyu madame Diop nga bu naa ma ak ñi ma àndal ñëpp. di kontaan ci maam Ndaka Faye le communicateur traditionnel di bëgg rek di wax ne nii rek la dafa am nag loo xamante que si moom la président di xaar ci commune Kébémer que am lu président di xaar ci commune que le président di xaar lan la yéen laa koy laaj lan la président di xaar ci commune Kébémer lan lay xaar lan lay xaar lan lay xaar lan lay xaar lan lay xaar lan lay xaar lan lay xaar jël ndam lii jox ko ko bu ko defee département gis lamp yi xam ni président Macky Sall soppi na xar kanamu Kébémer. ku gis ndox mi ak courant bi ni mu yokkoo nga xam ni président Macky Sall soppi na xar kanamu Kébémer. gis ngeen programme PUDC. gis ngeen programme ñu yokk ndox mi yokk courant bi jaare ko ci mairie bi kon loolu dañ ko war a wax parce que loolu président Macky Sall moo ko def ci dëkk Dakar gis ngeen ñuy bale mbedd mi chaque jour ba tël yaa ngi set loolu kan la président la ak président Macky Sall est-ce que loolu. dafa bëri nag lu des. xam moo des. xam nga lan des. programme jël tali yi. xëttale ko. defar ay boulevard. xëttale ko Kébémer mën a yaatu. jël njaabi taw bi Ndakaar xëttale ko ak biir Kébémer am ay tali. loolu moo des. te loolu lan moo ñu ko mën a may. lan moo ñu mën a may loolu. ñu jël commune Kébémer jël ko teg ko ci loxo président Macky Sall mu sawar man ñoo def right to the maire élection yi ñu jëm ay eleição locale la du élection Ousmane Cissé du élection bi te kebe élection dëkk bi la ak waa dëkk que dañ naan ñoom ñooy toog ñan ñooy toog te maire bi di saytu maire Kébémer mooy yéen ñu toog tey benn jigéen bu fi nekk war ngaa mën a nekk conseillère municipal benn jigéen bu fi war a nekk war ngaa mën a nekk conseillère départemental kon ñu xam ñun li ñu jëm dañoo war a fal ay gox goxaat dañoo war a fal ay jigéen ci yi dañoo war a fal ay jeunes ci quartier bi dañoo war a fal yi fal nan la ñu war a mel dañ koo war a mate parce que bu nga tànnee ni la koñ bi yow yaa ci nekk conseiller wala yaa ci koo war a matale matale ko ci jëmm matale ko ci ay nit matale ko ci lépp rek ba nga xamante ni si di nga mën a saytu sa gox. kon n'est pas conseiller qui tu veux n'est pas conseillère qui tu veux eh! dafa am nooy mel pour ñu tànn la kon nag nañu defaraat suñu ay jikko nañu àndaat bokku ndey bokku baay nañu àndandoo la main dans la main ñun ñu yaakaar naa toog ci table ñoo bokku ndey ñoo bokku baay suñu àndandoo insha allahu rabbi bu ñu àndandoo bu ñu bokkoo ndey suñu bokkee baay bañ a jeyante di yëkkateendoo di tegandoo li ñu bëgg ci Kébémer dinañu ko am bu ko defee ah, jigéen ñi doom ma ñaaw yi ni ko Ousmane Cissé waxe sànq doom toog ca conseil municipal ba di nas ak di nocc dem toog ca conseil départemental ba di lijjanti département Kébémer loolu la ñu leen yéene te loolu yaakaar naa ni yéen a ngi ci kontaan nag ci la mobilisation des femmes Adja Mbaye Diop kontaan nañ ci mobilisation borom réseau des femmes kontaan nañu ci moom kon yaakaar naa ne bëgguma guddal mais nii rek la àndandoo la main dans la main incha allahu rabbi au soir du 23 janvier ñu jël ndam li teg ko ci loxo président Macky Sall amee na ko demeer jëm kanam est ce que ànd ngeen ci ku ngeen àndal ku ngeen àndal ku ngeen àndal ku ngeen àndal jërë ngeen jëf Hadj Malick Faye ah borom mutuel baa ngi noonu maa ngi commencé di nuyu Assane Baye yow def naa boobu yaa ngi ñëw boobu man maa ngi fan voilà may dem Italie ma wax la ko nga jaar ca gaal taxaw xaar sunu ah. bi fa su ma demee Màkka aji da nga ko fekk nga jox ma ñu Italie mais da nga ko war a jox nag sëñ Moussa Gueye. allo waaw micro bi dafa gàtt mais lay sant di la gërëm. jërëjëf Faye. yow yaay sama rak xarit. waaw dëgg la. may wax ni bi ma waxee Assane dama wax sëñ Moussa bi sëñ Moussa bi yow yaa bokk ak maam Diarra jàng rek mooy seen seen bi. ku ngeen ñaanal yàlla may ko waaw maa ngi nuyu ñi fi toog yëpp Diallo maa ngi lay nuyu parce que tu fais partie des premiers appels maa ngi nuyu sama sama maak moom ñoo daan daje ci ci terrain bi muy xeexal affaire man may xeexal benn ñuy daje toujours bu ma ko dajeeg moom ni ko toogal yow dañ lay dóor di ko tooñ waaw maa ngi commencé nag di wax ak honorable député ndax yow yaa représenté tamit maa ngi lay nuyu bu baax bi ngay nekk député def nañ li ñu mën pour nga nekk maa ngi nuyu sama frère bi Ousmane Cissé sama rakk la rakkam xaw ma magam sama maam lañ ko tuddee El Hadj Cheikh Faye. il fut le premier maire de Kébémer. donc maa ngi maa ngi nuyu mbooloo mi góor ñi fi nekk ñëpp maa ngi nuyu. maa ngi nuyu Adja Binte Kébé maa ko waaw yow rakam mooy sëy suñu kër mu koy def bu baax a baax xam naa ni baax na mais rakam ak waaw maa ngi nuyu ay sa tudd kii sama rak la sama doom la parce que maag madame maak tantam Khady Kébé ñoo bokkoon université Dakar di fa jàng may def intellectuel Anta maa ngi lay nuyu te wax dëgg yàlla yéen ñi fi nekk mosu leen maa siis bu may ñëw APR da ngeen maa jàppale ñëw woon ma ne ñun ñoo ngi APR waaw Ousmane maa ngi jëm yow parce que yow laa doon jox daal Ousmane dañ lay jëfal man moom ku ma wax ni danaa la jàppale dinaa la jàppale te jàppal bi amul dara loo xam ne dama lay wax ni defal ma lii waaw sànq kontaan naa trop ci bi nga waxee nañ ñaanal Ablaye Wade eh, parce que yow xam nga ne le président mooy suñu xol

moo tax kenn ku nekk ki fi nekk am nga loo man nang ci ñafe ba mu ba mu daj mooy

mais ku euh, ñu def maire na nga nekk ko compétent compétent d'abord compétent la koo xam ne am na nit ñi mais na man fu projet nekk mu jëli ko mu nekk koo xam ni pour man pour man man sama bopp laay wax ah. pour man ki ma soxla mooy intellectuel bi nga xam ni am na yu muy yu muy yoo xam ne jiite na ko au niveau national ànd ak président Macky Sall bëgg ko ba projet bu mu bëgg a doxal mu indi ko fii di Kébémer mais yow nga toog Kébémer mënuloo gis président bi mënuloo doxal benn projet ça pose problème ñun ci suñu bopp bu fekkee bëgg nañ Kébémer développé nañ fi teg koo xamante ni comme li ma wax man na ko mu am groupe bu ko accompagné boo xam ne mën nañ ko waaw ki nga xam ni nag xam na nit ñi xam na am besoin Kébémer

ñoom ñëpp c'est des diplômés fi nekk ñëpp Binta Anta man keneen ak keneen Assane Faye ñëpp c'est des donc ku ko ku ku ko ku ko ku ko man ci Kébémer boo ñëwee fuñ la jàppale man je pense que duñ ko am man moom damay wax ni ku ma jàppale ci mairie gañ ko te ñaan naa yàlla ci barke Sëñ Touba bi ma gëm ba ki sun zuba ni magan dama ni sai in ga ya meri insha Allah oh ba ga ya sai meri dama ku ga ta ki ne ba nous allons gagner cette mairie Assane Mbaye ñëw wax li mu wax ñu dégg ko boo waxul tam war nañu xam kan la ñu wax ni moom la ñu bugg a def man nag duma wax li nga xam ne fay waxee mais li ma wóor ba wóor mooy ki nga xamante ni moom la sama réew bind

la mairie de Kébémer. jërëjëf ma convaincre maire je vous yàgg fi ñëpp du defante ba ñu yegg ci ñun xam naa ne kenn ku jël kàddu ku nekku jóg bëgg ngeen koo bégal bëgg koo waxal lu baax loolu duñ ko tere waaye bu gàtt bu guddee rek du duñ fi duñ fi jóg te dañ ciy faral moo tax ma bëgg continuer astuloo. santaat yàlla mi ñu may ñu teewe tey jataay bii ñu tàmbalee si nuyoo bi suñu kilifa yi fi toog suñu doyen yi ñoo alaaji mbay ka ñu ngi ñuy toog yéen yéenay pilier wu APR Ibrahima nga jiitu fi yoo xam nga nu mu demee di sant sama borom kër mi nga xam ne moom ma ci dugal ah, ndax léegi nag fekkee ma ci boole doole saxaar raay doole jënd ndox doole sama borom kër da doon ànd ak président Macky Sall ba dara dul dara di xeex di ànd ak moom ba yàlla def tey jii ñu jox ko réew mi ñu ci santaat yàlla bu baax di gërëm aussi ñu teew ci gataay bi yëpp sunu ay nawle tonton Assane Mbaye ñu ngi lay jox sa cër du di seen sëñ Mbusoobe sama mbokk bokk benn maam ba nga ne moon Aram Kebe ni Moustapha Kebe ñoo bokk benn maam ñu dëkk Njuro Kebe bokk te Mbusoobe aussi sant yàlla bu baax di nuyu sama sang bi Adja Binta Kebe di ziar Ousmane Cissé suñu directeur suñu coordonnateur di nuyu Adja Khady Wade Faye sama mag sama tante Adja Anta Diop Amet yàgg nañu yal na yàlla yàggal ànd bi suñu tonton Dalas Mbaye ñu lay ziar te di la di nuyu Ibrahima Diallo mi nga xam ni ba dara du dara la fi nekkoon ak Ibra Dieng di nuyu nag Adja Khadija Diallo honorable député moom it ba dara du dara la fi nekkoon ba ñëpp ne déet moo ne woon waaw nag tey jii ñu ngi santaat yàlla di nuyu militante fi taxaw yëpp muy góor muy jigéen di wax ni xëy na namoon ngeen ñu mais ñu nit namoon nañ leen fi namante la ni ko Ousmane waxee sant yàlla bu baax ndax dafa am lu tënkoon àddina bi yëpp naam jógeegu fi sax mais mi ngi wàññeeku ci lan gan baaxu sëriñ sëriñ su mag ci tëdd fii ci eh, réew mi di sant sëñ Muntaxa mi nga xam ne nag mooy suñu xalifa ñaan yi mu def ci Sénégal maamu kilifa diine yépp def ko fi moo tax tey jii mbas mi dellu gannaaw Sénégal ba ñu ñemee toog fii di wax di seqaat jàmm ak salaam li tax ñu gën a sant yàlla démb bi may ñëw Kébémer Kébémer boo ko daan romb day lëndëm kurus ba nga yong ba yegg Louga doo gis ni Kébémer romb nga fa waaye démb bi ñuy dugg Kébémer Adja Anta Amé gis nga ko dafa leer naa ñu lamp yi tàkk ma ne lii de président Macky Sall moo ko fi def muy lu ñëpp teg seen bët sànq bi ñu demee ceeb di jaare Mouhamed Dia jaar ci wetu lycée bi ñu gis projet cent mille logements yi ñu ni lii président Macky Sall moo ko fi def président nag neex naa liggéeyal ndax dafa am réalisation yu mu def ci réew mi def ko ci kilifa diine yi ndax boo xoolee kër kilifa diine yëpp dem na fa def fa teraanga tabax fa màkkaan boo xam ne tey kenn du ko laam-laamee barki démb la dem si mun Mountakha diiseeg moom mu wax ko di mu war a def mu doxale noonu dem si Tiwaawoon même chose ñëpp la jox cër muy kilifa yi te loolu rek mooy dala suñu xel ndax ñu ci loolu la ñu mës a tënku waaw diine la ñu xam am ay kilifa te bu fi nit tënkoo du juum donc président tey jii mu demoon fële di Kaffrine di inauguré hôpitalu Kaffrine war a dem Kédougou inauguré fa hopital ndax moom dafa bëgg su jege ku sori ñëpp bokk lépp lu ñuy ñu bokk lu ñu jot président li muy bañ mooy injustice li muy bañ mooy ñii am ñii amuñu loolu moo waral bourse de sécurité familiale yi mu seet ñi néew doole di leen ko jàppale. couverture maladie universelle bi mu ne naa ko teg ci askan bi ñu am néew doole mën di faju donc programme président bari na duñ ko wax tey jii bis bu ñu duggee ci liggéey bi dinañ ko leeral dinañ leeral bi dinañ leeral li mu taxawoo askan bi dinañ leeral la bëggee askanu kii Sénégal waaw ñun nag Kébémer dañu bokk Sénégal yëpp doxee te Kébémer doxul ñun am na lu des ci ñun donc ñu ngi ñaan yàlla tey suñu commune bii bokk ci département bi ñu nekk 19 communes yàlla def askan bi wóoluñu jël maire bi teg ko sunu ay loxo ñu liggéey ko ni ñu ko bëgg a liggéey suñu dëkk bii jàppale ndaw yi fi nekk ba ñu am ay liggéey jàppale jigéen yi fi nekk ba ñu gis seen bopp infrastructure infrastructure yi yokk yokku investissement yi yokku projet yi taxaw nit ñi liggéey askan bi jëm kanam koom-koom bi jëm kanam loolu dañuy ñaanal te yàlla nee na ko yàlla defal ndax ñi ñu àndal ñëpp dañu am engagement fan leen bàyyi woon ba tey fan ak leen fekk tey jii bu ñu xëyee suba ànd ñun ñii ñëpp ñu joxante loxo nekk benn ànd ak yéen ndax yéen yéen a ñuy dooleel yéen a ñu nekkal fii am nañu yaakaar ci ni si kàttanu yàlla yàlla mën nañu may ndam yàlla ñu ko yàlla defal jërë ngeen yàlla jële ko ci àddina bi yëpp yëpp comme ni ko ñi fi jiitu waxee rek namoon nañ leen bu baax a baax mais xam ngeen li tax li ñu tontoon xam ngeen donc di santaan ñëpp di rafetlu mobilisation bi di nuyu sama naataangoo yi toog fii yëpp sama frère Assane Baye di ziar suñu sëriñ bu soobee ma sœur Binta maa ngi lay nuyu DG suñu coordonnateur communal Ousmane ñu ngi lay nuyu Khady Wade Aïssatou sama doomu ndey bañ tolloo nii lañ commencé ànd bokk ay xarit Dakar Ibrahima le pionnier de l'APR ak Ibrahima et surtout nag l'honorable député Khadijatou Diallo maa ngi lay nuyu di la sargal di nuyu femmes yëpp di ci jiital Adja Mbayang aussi ba nga déggee réunion ba léegi nelawoo nelawul tuuti nelawul ba di nuyu ñi ma àndal aussi di leen sant di wax rek bu ñu xoolee lii mën nañoo am yaakaar xam naa ni bu xoolee table bii xam ni Kébémer en miniature la ngi loolu Kébémer yëpp ñu nii toog ba bu ñu gënee booloo di yëkkatoondoo di tegandoo defe naa li ñu bëgg dinañ ko am ñun ñëpp ñu toog fii benn objectif lañ am yëkkati commune bi teg ko ci loxo président loolu nag nañu xool rek le meilleur profil ñun ñëpp ñu jàppale ko ñun ñëpp li ñu soxal mooy Kébémer jëm kanam de bu ñu jotee ci commune bi dañuy gën a mën a gën a avancer loolu Kébémer donc santaan ñëpp rek di lu mobilisation bi. di ñaaxaan ñëpp rek ñu gën a déterminé wu gën a engagé wu ba li ñu bëgg ñu jot ci wasalaam. man nag li ma gën mooy dama gis ni jigéen ñi. kenn bougéwul te wóor na ma ni ba ba ma jeex nii la ñëpp def loolu mooy wane ni nit ñi déterminé nañu engagé wu ñu ci li ñu def ñu jox kaddu gi comme vous l'avez dit le pionnier Ibrahima Diallo. merci beaucoup. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum waa Kébémer. Salam alaikum wa APR Alliance pour la République maa ngi nuyu ñëpp di la mobilisation des centres aussi nous avons organisé ñoo organiser mobilisation Mbaye match spécial spéciale à toi je pense que nous avons ñu organisation rassemblement donc ñu lay sant de la grève di wax ne rek je pense que ki ñu dajel fi ki tax ñu dajé fi nit ku soré ci suñ xol la muy le président Macky Sall nit la bo xamanteni manam reccu wuñu lu taxoon ñu jappalé ko regretté wuñu aussi lu taxoon ñu jappalé ko te gisunu aussi lu wara tax ñu dellu ginnaw ci lañ ko doon jappalé ba taxna bala ma maa guddal damay nuyu ñep di nuyu le coordonnateur monsieur Ousmane Cissé di nuyu tonton Assane Baye mi tok ndax li ma xam moy xaritu président la ndax ba président di wax xaritam la yalla dafa def man ak khadijatu Diallo mi ak Sangone sal ak seigne Bass Khadim Awba ño nekkon kërëm guddi mu recevoir mu ma Assane sama xarit kon xaritam la te ku wér la itam personnalité te ku yàgg jàppale président la ci loo xamante ñun ñi àndoon ak moom sax bari na lu ñu umpoon la ko président leeral donc Assane loolu man li tax ma koy seede def na ko président ko sama kon ñu ngi lay nuyu madame Lo madame Ngom mi toog ay sadu mën naa wax ni bi président takkali xoo ak abdoulay wat kër gi fi njëkk dugg ak ba mer muy këram moom bi kon wëllëri bu yàgg la ci diggante moom ak le président Macky Sall te loolu mu nekk loo xam ne lu ñu xam la weesoo loolu damay wax Ousmane Cissé directeur des mines yàlla dafa def 2014 bi ñuy waajal élection locale bi ñu président recevoir ba koy président digital def amul am solo lu mu wax ci moom maanaam bokk nañu jàng bokk organisation des ingénieurs ñu am yu wëllëre ba pare mu am yaakaar ni que moom war na ko mën a gañal commune bu Kébémer te jàpp naa ne boobu ba tey Ousmane yaa ngi ci ñëpp ànd ceeg yow kon nag jàppal ni ci li ñu jëm na nga continuer bootaat ñëpp tàllalaat ñëpp lox àndaat ak ñëpp pour que ci li ñu jëm yàlla may ñu ci ndax ñu fexe itam ñu fexe itam ba ku ci ne lepp lu ci def mu doon lu ñuy waxtane suñu biir ñu ko suñu biir baña am ciow ba yalla ma ñu ndam ndax kat am nañu nek ci côté bi ño xamanteni ñu ngi xaar pour ko ñu mba ñu ñu mën ci profito pour def ñu li ñu nekk ma dal ci wat di ñew di wax ne madame la maire te kebe président sax da soxla won ku ko dimbali ci dëkk bi bala ma ci ñew damay ñew ci fréram muy dam kebe mi ñom aline badr cissé ak ñom abdourahman ndjay bañ ñuy fekk fi man ak mi di tourner ci département bi Dame Kébé moo leen doon alimenté en carburant te loolu dama koy wax fii donc ñoom yàgg nañu ak président Macky Sall kon tey jii président bu soxlaa ku ko dimbali ba madame le maire ñëw kon madame le maire dañuy kontaan ci ànd bi nga ànd ak te ñu bëgg aussi ànd bi nga ànd ak ñun bu doon ànd boo xamante ni ci lii ñu jëm ñu am ci ndam ndax bu ci amee ndam yow mii ñëw ci ñoom fekk si ñu digg si kon day jaadu kon day jaadu. ñu gën a yaatal suñu biir bootante suñu biir juboo suñu biir ndax li ñu jëm def am ñoo xam def am lu bare lu ñu sacrifié ba ñu agsi bi ñu agsi kon nag damay tàllalaat ñëpp loxo di waxaat rek que madame Khady Wally mi yaayam ba ñuy xëccoo fii en 2009 2012 moo ñu doon luy ay chaise bu ma ñëwee fay ko des fois duma ko fay chaise bu tàmm ak yi mat laa sax mu jégal ñu keroog ba congrès présidentiel en 2011 ba ñuy def congrès d'investiture bu président Macky matelas yeeg congrégiste yi tëdd yëpp ñun ñii ñoo ko luyee fii ci département bi yóbbul ko ko te am na ci yoo xam kër yaayam gi la jóge kon nag ànd yàgg na kon bu ko yàlla defee tey ñun ñëpp ñu bokkaat bëgg-bëgg damaa jàpp ni war naa mën a rafet du ma terminé te santuma Anta Diop ndax itam yàgg na ak ñun mu nek di investir corps et am pour que ñu am victoire kon Anta jappal ne fi nga nek gëna la té mbir mi sa mbira di wax aussi de même que honorable député Khadija Diallo ndax mom mi ñu nak mom la won ñuy def suñu pancarte ak suñu tableau pour ñu wone Macky Sall ne am nga représentant fi dans le département de Kébémer li ñu la dénk nak dañ koy sago té dila ñaanal Yalla aussi Yalla na yenen yenen yeneen ci té bu doon lu gën ci yow gën ci askanu bu Kébémer duma terminer terminé te waxuma Ibrahima mi moo nekkoon sama mag nekk sama kilifa dañu xelal jiite ñu ci yoon wi mu may ñu fit lool ndax ba ma koy Abdourahmane Ndiaye di yóbbu këram di ma ko présenté naan am naa fi frère loolu yàgg la te boobu ba mu ngi téye te nag amul kenn ci ñun nag ku am lu la neex maa bëgg ngeen xam ne ñun ñu àndoon ak mag Sall ba muy metti amul kenn ci ñun ku la am lu lu am lu la neex mais téwul ñu ngi continuer and ak suñu ngor ak suñu fulla ak suñu fay de téye ndax ñaar président Macky Sall ak kébé mère gi ñu def kon nak na ngeen japp ni képp ko xamanteni déclarer nga sa candidature sa morom bëgg wala nga bëgg rek way ngir yalla war ngeen a seet ñun ñi nga xam xëccoowuñu dara li ñu bëgg moy kébé mère am dara kon nak message may lancer wat ñëpp képp ku président tànn man Ibrahima Diallo naa la jàpp nangul te nag jàpp naa ni itam xëccoo du ñu may lu dul xañ ñu maire kon nañu dimbali suñu biir du maire kese moo fi ne am na yeneen ak yeneen yu fi ne te nañu jàpp ni képp koo xamante ni président nee na la yow la dafa fekk ni seet na ko seetaat ko ba xam ne mën ngaa gën kon nag li may wax démb moom lay wax tey képp ku fi gagné li nga bëgg rek mooy ñett yi mooy d'abord sagal le président Macky leneen li mooy fexe ba am bilan bu tax wala Kébémer taxoon tànn la ñu bañ a am gerte eh beneen bi mooy ñun ñii nga xamante ni ñun ñoo sol suñu dàll naa nit ñi wote leen leen ñu mën ñoo bàyyi xel ndax li may wax mooy benn biir dafa am Kébémer gii ñun bu ñuy réunion ñeen ñu ngi ngàbb seen tànk di dox kon nag bu ñu jógee ci réunion bi nañu sol suñu tànk dox dem ci nii waxtaan ak ñoom ndax ñu botal kon nag maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp bu dee nag am na loo xam wax naa ko mu waroo ak leneen da ngeen ma jéggal la ma ciy dolli nag mooy benn mbir la ciy dolli mooy benn mbir xëccoowuma dara benn ñaareel kenn mënumaa korom ñetteel am naa fulla ak fayda bu toll ni ku ma ci àndal dinaan yow laa àndal ku ma ci àndal du ma ni yow la àndal mais kenn laa àndal président Macky Sall oh, maa ngi sant ñëpp di gërëm di conseil ñu jox kàddu gi Ibrahima Dieng waaw waaw Dieng Sall ak Thioro ma jigéen Macky Sall le d'accord non vous avez la parole

muy responsable ak militant tout le monde képp ku fi teew rek nuyu nuyu la nuyu bu sedd suñu xol ah, Ibrahima nag dafa dafa dagg sama lu ma bëggoon wax loolu Ibrahima en tout dëgg la Ibrahima Diallo gàcce nga la ah, ànd bi yàgg na ah, ñoo bëggandoo suñu Macky Sall ba ñuy commencé yéetoon nañ ci sonnoon nañ ci léegi waaye tey jii bu neexee ñu lay gàcce nga la man daanaka ñëpp ñëw kon Ibrahima merci ci wax ci waxal nga ma euh, beneen bi ma ciy dolli mooy li Khady Wally Faye wax tamit maa ngi koy rafet tey na ñi nga rafet bu wax ci yëpp mhm. waaye wax da ngay tënk jàpp ca lañ ca a jàpp mhm. wax ko kon boog wax nañu lépp dëgg la dañu jëm ci ay élection ca dëkk bi gis ngeen Kébémer dara nekk fi

am na compétence yi am na capacité yi yàlla dénk na ko yàlla bu cëralee nit da ngeen nangu ni yàlla cëral na nit man maa ngi fii maa xeexal Macky Sall xeex naa sonn naa ci lu nekk waaye saa su nekk ku nekk xam na sama attiré ay mbaar la ma nga ne waaye maa ngi sant sama borom ndax kenn ñu baalewu ma ci dara lu ma am ci àdduna sama ñax moo ko may barki dem Ousmane mii di ñu toogee ci kër sëñ ba sama rak ki toog ci man directeur financier am na ci jigéen ñi bi ma fa yóbbu ca Dakar. maa ma neexoon nekk tax rek di sañse di dem di ñëw di indi xaalis waaye sama ñàkk laa yaakaar yaakaar waaye nag di ma leen wax bu yàlla cëralee nit da ngeen di xam ni yàlla cëralee nit am nañu ko nag ñun am nañu ku mën a soppi xar kanamu Kébémer am nañ ko buñ ko ragal nañ ko ñeme nañuy ñaan nag ka parti bi di désigné ca kaw mu nekk moom jërë ngeen jëf Abdul Aziz sëñ Ablaye Bousso borom Chahir ci wàllu sa baay Macky Sall le marabout de la jeunesse vous avez la parole. asalaamaaleykum wa rahmatulah. bi. ñoo ngi nuyu ñëpp comme ni ko ñëpp defee doyen Assane nekk conseil wu kilifa réew mi di ci teg euh, Ousmane le koordinateur directeur bi directeur ñaari yoon yàlla na directeur yi yokk yàlla na ndombo tànk yokk baax waaye Ibrahima ñu ngi lay nuyu lu bari bari ñu ngi nuyu Soxna Astou comme ni ko waxee sànq ñoo bokk lépp xajiwaale ñi nga xam ne nag moom lépp ñu bàyyi xel bu baax a baax léeg-léeg mu message boo xam ni boo ko dégloo dafa am ci lu bëree bëri lu lay nuyu lu bëree bëri madame le maire ñu ngi lay nuyu lu bëree bëri. soxna Anta yow ñoo bokk maam ñu ngi lay nuyu lu bëree bëri honorable député Khadija maa ngi lay nuyu lu bëri di la Papa Dalas maa ngi lay nuyu Papa Thiam maa ngi lay sër revue de la jeunesse. ak mboolem ñi nga àndal ci mobilisation bi ak liggéey bu am solo bi. ñoo ngi nuyu aussi mboolem ñi nga xam ni teew nañu fi képp koo xam ni tudd ñu la yëg nga xam ni tudd gi moo ko matewu. di wax rek comme ni ko ñëpp waxee. yaakaar naa ne li ñu def nii kilifa gi ñu koy defal yëg na ko bu yàgg waaye su ma yaboon yi léegi nii laa ànd ak ministre de sport Matar Ba dem Fatick. sa xarit teeru président de la République bi ñu toogee nee naa ko amoon naa yéene dem Kaffrine ànd ak yow ak Kédougou. waaye suñu parti bi la mu woote ca laa bëgg dem ba noppi loolu moo tax mu bàyyi la ma doon def ak ña doon defandool yëpp ñëw ci ndax dafa am fu ñu jëm te fii ñu jëm dafa am lu mu laaj te li mu laaj ñun ñëpp dañ ci war a nekk suba ak ngoon bi jëm bu laajee wax ñu wax bu laajee jëf ñu jëf bu laajee taxaw ñu taxaw bu laajee dem dem bu laajee ñëw donc ñun ci loolu lañ nekk di wax nag ni lépp loo xam ne président la jël na ko comme programme teg ko ñun dara ñoru ñu dul programme boobu am waaye bu loolu jàllee aussi dafa am lu ñu ñor muy Kébémer te Kébémer dama koy wax bëkk démb rek nii bari na fi ay kilifa yu fi jóge tey yoo xam ne boo leen yeewoon duñ laajte dañuy dellu seen kër buñ jógee rek dañuy ñibbi kon war na ñun ñi nga xam ay ndaw lañ te nekk ñu fexe dëkk bi baax ñu fexe dëkk bi changé ba képp koo xam ne jóge woon nga fi buñ la yeewee doo mën a dellu sa kër wala di nga laajte war nañ aussi am ay taxawaay ci dëkk bii ndax jàpp naa ni des na benn at wala ñaari at ñetti at ci kanam bu dëkk bi continuer nii muy dox yéen ñi fi toog ñëpp seeni doom wallahi dinañ dem gàddi di ko wala feneen ñaani kër te li ma wax xam naa ko bu baax te li may wax aussi ñi fi nekk xam nañu ko donc kon war na ñu taxaw xool dëkk bi nii muy doxee teg ko ci ay loxo yu leer ñu jël yëf yi tegaat ko ni mu war a doxee mu doxee ko mhm. loolu nag li koy def mooy ñun ñëpp ñu ànd ñu yëkkateendoo di tegandoo fexe ba dëkk bi ci élection yi ñu jëm ñu fexe ba ànd jël dëkk bi teg ko ci ay loxo yu baax ñu liggéey ko ba li nga xam ni moom lañu am yéene ci dëkk bi président am ko ñun ñii ñëpp ànd ak moom ñu am ko ñu matale loolu rek laa amoon ci ay yoo xam ne dama ne dinaa ko yëkkati nuyuwaat mboolem ñi fi teew ñëpp di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum eh, eh, dama bëggoon a jox Nianga Dieng ci kàddu dina ko jox. Fatima jigéen mi ci guy mooru ko Merci. Déggal ni déglu ko may ko may ko may ko may ko. Waaye ña nga jege digne bi xale bu am personnalité bi ala matin dem ba door mo joxoon ko la baye ko yaay ay Joseph Paate Ngoone Gile joxoon ma baay jàmm njaay sama rakk ji Ousmane Cissé namoon na laay Ahmed dama ni naa dem war naa taxaw ci Ousmane Cissé yéen a bokk yéen yéen ak mbalaxe ak doofu ak tund baxana yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant waaw maa ngi nuyu monsieur le DG maa ngi nuyu Ousmane Cissé bu baax di nuyu tamit fekk fii yëpp di wax ni wax dëgg neex yàlla dellusiwaat fii Ousmane Cissé kontaan naa ci trop ndax man ak moom mën naa ni démb la woon dama fi nekkul woon nag mais ñibbisi naa di jàmm ak salaam pour jàppale Ousmane Cissé li ma koy jàppale nag mooy. Je ne suis pas parce que pourquoi carte électeur xam nga amul sens parce que buñ dee dajale mbooloo bi yëpp te amuñu loolu mun naa ni la euh, jarul ñuy liggéey li ma li may wax ak bi mooy ku amul kayitu juddu demal nga wuti kayitu juddu amul carte d'identité nga dem wuti carte d'identité bu bu heure inscrire jotee pour carte électeur yi nga dem inscrire parce que yooyu mooy tax nu gañ a tey maire Kébémer parce que suñ ko amul mënuñu gañ a dara dama bëgg invité nag waa APR yëpp responsable yëpp dugg ci kër yi waxtaan ak jeunes yi waxtaan ak mag ñi nga xam ne amuñu carte d'identité amuñu carte électeur bi ñu jéem ko wasalaam merci

ndax dafa jàll mais ñaari parti mi ci tànn bi ma nuyoo ñëpp ñu góor ñi ñun jigéen ñi ñun xale yi ñun mag ñi mooy lii ñuy wax fii nan ko jëfee ci commune Diaoné coow leeg sàcc yeeg buñ fi jógee ci koñ yi léegi tamit seen bi Ousmane Cissé góor ñi jigéen ñi toog waxtaan mu seet luy liggéey quartier ba mu soog a mën a wax ne daanu gañe mu liggéey commune ba mu jaar mu jël ko teg ci loxo Ousmane Cissé Ousmane ko teg ko ci loxo président de la République muy Macky Sall moom am na fi dool mais des na nanu jëfe loolu jëfi moom sunu jigéen ñi fi toog ñuy suñu nag ñuy sunu ñëpp kenn ku ne mën nañ jaar ci turam mais bi ñu leen ñooy ñoom ñëpp responsable yi fi nekk xamante ne kenn ku ne xam lu mu mën Ibrahima Diallo xam lu mu mën ngeen xam lu mu mën te quartier yi ngeen nekk mën ngeen faa liggéey loo xam ni mbaykat yëgu ko Ousmane Cissé yëgu ko Assane Mbaye yëgu ko kon nañ jóg ci loolu liggéey bokk ndee bokk bàyyi bay xuloo bi bay cooloo bi bay leneen ak leneen ñu liggéey gagné teel na de suñu temps bi ne dañu gagné dañu gagné nanu liggéey loo xam ne daan may gañaay may nuyu waa quartier Gala yëpp ku bokk Gala la nekk affaire maa ngi lay nuyu di la tàllal loxo man ku ngeen jiital ànd naa ci nanu liggéey pour affaire bi dëkk bi am loolu affaire li tax ma jóg xam naa ni sànq waxoon naa ni

sas wax toll ni defaraat parti bi cadre bi nga xam ne mooy cadre parti bi ñu ubbi ko yaatal ko ni ko président Macky Sall defe président Macky Sall dañ koo fal fal gu rafet premier tour mu pare génn ñeent ñëpp waa naa leen ñëw leen nu dialogue ñu waxtaan doom no wokk réew mi ci la élargir ba woo Idrissa Seck woo ñeneen ñoom Omar Sarr ak ñëpp ñëw waaw ñun lu tax mënuñoo def loolu Kébémer man noonu lu ko raw ndax noo bokk lépp ñun ñi ñëpp di yëngutu fii benn bàyyi politique la ñu am te loolu dara dañu ci muy Abdoulaye Wade mooy sunu bàyyi politique bàyyi nag bu la juree ba nga magum jëmm nga ber kër sañ ci kër firiwul ni seen relation dafa yàqu waaye da ngaa mën a jàpp mën a yor li mu yor nga yor comme politique nag day dem ba muy mu loolu moo fi indi lii moo fi indi Macky Sall moo fi indi leneen ëllëg ñuy ñaan képp koo xam ne kii yaa ngi fii dëkk Kébémer nga xam ni ñun ñii toog لما يقول كما تقول كامل مواتكو وكما وحي فوليتيك دماء بغيان دقل مباك بالله بغ دك بي دك تي دك بي جدو في بغ دك بي باك موني في تقاطوك امنا نيو يالا سودرالي نيو كان كو تي نيك تيول مان nga tok fa nga tok di liggey di am teranga mais lolou doyou lolou doyou man mi de lima fi defal duma ko bàkkoo waye dama beugal yalla may moom won ko multiplier wat par 10 par 5 par cinquante te lima nek man na wax lolou ci tour Ousmane Cissé man na ko wax ci tour jigen ñi tok fi ñep parce que jëf nañ ko ngeen gis ko ci seen kanam li meuna tax nak yene ji mat yene jëlu yene ci dekk bi tax mu meuna mat moy, ngeen and ak ñun nu dugg ci dekk bi fab dëkk bi tek ci loxoy ki nga xamne ne moy defar Sénégal gep muy président Macky Sall ñun li ñuy wax dañ ko xam am nañu plus de 35 ans ci politique yàlla suturaal na ci am nañ ci fonction ñu ne ñuy dox ne ci biir ba leg xam nañu dëkk bi Sénégal point par point lu fa président Macky Sall def Kébémer nag mi ngi fiy def de di leen dimbali li dëkk yëpp lamp yaa ngi leer ndox maa ngi yokk leneen ngi yokk waaye wulaay bi laay bu ngeen ko joxoon maire bi dana fi raw fukki junni yoon kon nag nit ki nag day am fula am fayda bu ñu nee dëkk fii guddi ak bëccëg di leen tàllali loxo di àndandoo ak yéen pour bëgg a dimbali dëkk bi. dimbali sunu bop parce que dimbali dekk bi moy dimbali sa bop ndax dekk boo fa cosaanoo say wajur nefa say rakk nefa say jigen nefa say jarbaata sa ñepp nefa bo sañal mu gën ci dekk yi ci senegal yépp lolu moñu fi indi moñu ñunu mo tax ñu taxaw liggey bi nak li ñi wax mo ci nek étape par étape la dañoo commencé yëngatuwaat taxawat ñun li nu war muy war Ousmane Cissé mooy coordonné dëkk bi ba yëkkati président Macky Sall ni ko man de coordonné naa ko ba lekk jam na loo wax ñu ànd ca lu mu wax ñu ànd ci Macky de taxawagul day dem de. waaye nag wala fii dañ naan buntu bu jarul daj. Ah, buntu bu jarul daj. kon lii bu mu dakkati programme bi nga xam ne bii jigéen ñi tëral nañ ko ak Ousmane Cissé ñun ñëpp dinañ ci jàpp ci nu nekk luñ ci war a taxawee dinañ ko ci war a taxawee engagement bii dama ko jël ci turu ñi fi nekk ñëpp luñ ci war a taxawee dinañ ko fi taxawee incha allah lii bu soobee yàlla dootu dakk dañuy continuer di ko def li ñu war def ci dëkk bi ñun dinañu ko fi def léegi nag comme dafa guddi dama bëggoon rek jox suñu mag Dalaas Mbaye mu sànni ci ay kàddu avant may jox Ousmane Cissé muy clôturer incha allah. Bayang, bayang, bayang, bayang, bayang Jo, bayang ke protokol, bayang, bayang jenglul, bayang jenglul ma Jauh ya yow yaa moom lépp yaa defar lépp muy guddi muy bëccëg ku jaar sa place bis ku nekk nit ñaa ngi lay wër ngay wax yow gisee ñu ba ca kanam ñu doog jox am lu ko waral jaw yaa war di dégg boo waxee Ousmane wax leer man nag sama wax man leen rek lay doon man daal damay wax day gàtt li ma bëgg daal nii ngeen mobiliser ba ñëw ba fii ni ngeen dëggoo noonu li mu wax war rek moo ak góor du war. waaw mais bon ak bon. élection parce que yow laa àndal yow laa àndal te bu gis baa kenn du la gis loolu. loolu baax boobaag léegi ñii ma fekk ñii ma gis naa ñëpp ay cadre la xam naa leen bu ci ne am Ousmane Cissé amul lu mu fi def amul lu mu fi wax ay Stello même chose Anta Diop même chose Khady Wali Faye même chose. dama ni ñii ay genn war lañu amul lu ñëpp ci dëkk bi ku ci nekk lu ngeen leen wax def nañu ko yéen ci des nag léegi di bon nag mooy boo weetee na nga bari soo wétini ko na nga bari man kat ku ma xam li nga ma xam mooy dëgg Ousmane politique bi boole wu ñu xam nañu mbokk ci kër yolof nañu mbokk maamam bi jur waajuram ak sama baay ñu ak papa yi ak ak papa ñoom fa ma ñoom Tafa lañ fi ñoo ànd jógee Jolof man li ma bëgg mooy ku ma xam fii le 13 mars 1971 maa ne premier caisse bleu Ablaye Wade Sénégal ba mu jeex maa doon bind fii Kébémer bii Ablaye avancé woon kenn ñemewu ko woon Kébémer ci même xam ñeme naa ko mu ci masa wax doo jaar fii doo fa jaar xanaa léegi barke sëñ Touba ñëpp a ma xam. man bu ma àndee ak dañu ànd te yàlla tax man maa ngi sant yàlla bu baax damaa liggéey trente cinq ans ba am sama pension samay doom dimba dimbali ñu ko France kon taru kon xamu lu ma yaakaar yàlla ñu fay sëñ Tuubaa képp am naa ngërëmal ndey am naa ngërëmal baay mais ñii ma ànd ak ñii samay sœur lañu te xam naa ne duñ leen war mukk ma bëgg nag responsable yi nga xam ne yéen a fi nekk kenn ku ci nekk lépp lu la jox na fexe ba li la jox nga teg ko ci loxo ñin ko jox lu ngeen di def ni ngeen koy yëgoo waaye kii naan aw ma kii aw ma loolu amul solo nit su ngeen di ànd mënul bis bu mu jox alors kooku sape bu bàyyi def Macky Sall bërigo la ci mbarsal ku ko kuus mu dem ku ko kuusul mu dem wax naa ne de danga meer gi yàgg nañ fi

Que muito troisième maire Kébémer gis ngeen ko mi ngi mu toog deuxième deuxième mooy deuxième bi dafa bàyyi lépp tal tal loxo mag yi na waaye xam ngeen ni fii li fi xew xam ngeen ngeen wala wala bale bii ñuy bale man maa ngi gën a xam de ñii ñu ngi fayee ko fii ku leen di fay Macky Sall crédit mutuel lañ leen di fay Macky Sall bëri gënu ca mbartal xoolal ku xuus mu def ku xuusul day def Assane Mbaye yow say mbokk yëpp say bottaalal loxo di topp ñëpp la gën a nëbb woo làq woo am nga yow am nga teg sëñ bu soobee sëñ bu soobee yow maa ngi am na ku bëri ku sa maam dama naan toog mu ñaanal ma ak sëñ Fall ci biir kër loolu yàgg na boobu ay tout tànk la maa ngi sa ñëpp di gërëm ñëpp di wax di ngeen gën a góorgóorlu képp ku ne ci koñ bii maa fa ne na nga fexe buñ fa ñëwee nga indi lu wóor teg ko ci loxo yu wóor lu la joxe nga teg ko ci loxo yu wóor mais bul ñu maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm wasalaam di kontaan bu baax a baax a baax ndax li ma naroon a wax guddi na wax nañ ko man waxaat rek kon maa ngi kontaan bu baax ci jigéen ñi nga xam ne ñoom laa àndal ci liggéey bi maa ngi kontaan ci ñoom bu baax a baax soo fii di dikute maa di kontaan ci mbooloo mi ndax woote yombul woote yombul kon damay sant ñu bu baax a baax ñi nga xam ne su ma leen woowee ñu bàyyi seen i yitte bàyyi seen i kër bàyyi seen i yitte ñëw ànd ak man ndax tey ci ñi kenn tëddul kenn nelawul dama wax ci politique bi ndax guddi na li ma waroon a wax lépp wax na kon li may wax mooy di sant jigéen bi di sant ñi may àndal yéen yéen dama leen di sant di leen sant baax di leen gërëm rawatina waa réseau des femmes ñun dañoo créé réseau des femmes jigéen ñi macha allah jigéen APR yëpp nekk ci. ñu nekk ci groupe bi di waxtaan réseau des femmes mooy jàppale président Macky Sall jàppale waa Kébémer bi ñu defee ba léegi macha jigéen ñi tooguñu noppaluñu guddeeg bëccëg ku mel ne Aïda Faye Ndiaye mi ngi mënuma wax nag. mënoo lim ëpp nañ juróom fukki koo lim. waaw comme que jëlu waxuma ci ñoom leen waroon a wax lépp guddi na. tënk nañ ko waaw damay sant ñi nga xam ne su ma ne ñu jóg. ñu jóg ndax ku danga naan Adja Mbaye ndax yaakaar nga ne Adja Mbaye woote boobee ku ca ànd kenn du génn te bi may ñëw damaa mobiliser bi ñëwee duudu mooy sama témoin fekk naa ànd ba ca bi ñoom ci bit ñu ma waroo woon a dugg te ñoom Ousmane ci sa ñoom ñëwuñu ba nga gis ñi nga ma génn ci biti ñu woowaat Ousmane ko ko Ousmane ne neen ñoom mbay nañ duggaat ci biir ñu jëlaat chaise dugg bi may ñëw 46 laa fekk jigéen ñëpp taxaw kenn amul ku ñu toog ñu taxaw ci mbedd mi ñu taxaw ci biti ma ànd ko Aram Sall ñoom ay dafa Njaay ñoom Seynabou Njaay mi ngi ñuy toog benn faat ku jële say nit ba ñëw rek sax ñemewoo jubal ci permanent danga naan damay ànd ak Mbaye Ndour ndax maa leen doy doy leen ci xalaat hmm. ñuy ànd di liggéey parti bi barka Allah ñu jiital ma te fakkatalul ma man ci jigéen ñi may àndalaat mënuma koo lim ndax ay ñeent téeméeri jigéen man mënuma ko naan mais su ma nee réseau des femmes rek naa ñu maa ngi gërëm sunu lawbe ba ci ñoom doog a jaan ne biir àndee jox dañu ñun ñëpp mbay jóg la ne àndal meeg naa ndax bi ma egsee fekk bi ñeent fukki sees ma ànd ak lu jege téeméeri nit ak juróom-benn fukk dama xaw a Ousmane Cissé bu xoolee baxtaaram dina gis sama numéro ma woo ko ñeent appel ne ko 5 heures ngeen waxoon ñun 5 heures fekk nañ fi mais jigéen ñi ma àndal kenn toogul mais jotumaa jël ma ànd ak ñoom doog a caam ne jigéen ñëpp ñu wuy si ma kon loolu damay sant baax di jëm ci yoon man bi ma na jël parole ñàkk jël ci wax ci politique bi intéressé wu xam nga lu ma intéressé sama jigéen ñi nga xam ne ñooy voté ji te su ma leen ne jóg leen ñu jóg su ma leen ne toog leen ñu toog ndey sàmm bi ñu njaay sàmm bàyyiwuma kenn njaay bu faale sàmm sama kër la yem ma lim ak ku ma limul maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm man xam nga ñoo ma intéressé yéen ñi toog yéen jigéen ñi kon wa salaam jërë ngeen jëf sama law dama ni dama ni nan déglante tuuti xam naa ni affaire bi neex na sama xel sama xel dem na ci woykat nee na affaire bi neex a neex neex a neex a neex a waaw léegi nag maa ngi leen di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

ñu jox leen commune de Kébémer nu koy jiitee danoo yore jikko yu max max bëgg na suuf te suuf su mu yoree da yàq ñaareel ba suuf si li xam ne dañ koy jël di koy jaay buñ ko jaayee ba pare ñëw ci tànt yi di leen di seet si di leen joxe enveloppe suufu Kébémer la ñuy jaay di leen di seet si te am na loo xam ni lu ñu war a lijjanti fii ci dëkk bi boobu ba léegi maa ngi koy wax ndax mënoo nekk un responsable dans la commune de Kayemer nekk un simple employé dans la commune de Kayemer yor alal yoo xam ne kenn xamul nu mu toll te lépp yaa ngi ko jëlee ci suufu Kayemer. nan waxante li fi nekk li fi nekk mooy nan xam ni suufu Kébémer noo koy saxat saxatee danañ génne liste ñi nga xam ni ñépp lañ jox suuf ñu xam ka lan jox suuf nañ ko audité na yëf am na responsabilité yoo xam ne soo ko jëlul di koy wax ak di koy tëdd di koy noppwalee yaag ñi koy def yéen a yem te mënuñu saa yoon jëmee élection muy 2014 2013 ñu def lotissement jël ay terrain jox ko ñii jaay jënde ñu ñëw élection 2021 jii mu jëm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

comment comment ku euh, euh, Euh, tali tali Kébémer man ingénieur la man xam naa lu lan mooy calcul xam naa lan la ñuy defaree tali xam naa nu koy calculer boo jëloon fii ñetti xale mais da mën a nekk maire ci biir dëkk pendant douze ans tali bi di yàqu amee ay kàmb xanaa sax soo amul goudron nga jël saaku ciment ak béton woo xale yi ñu sëq bën bën bi. soo awee boo awee non dama ni leen di wax lu ne lu leen di wax lu ne da ngeen teg seen loxo jardin public jardin public loolu du jardin public déglu loolu du jardin public. terrain football la terrain basket la. bërki démb. bërki démb. bërki démb. bërki démb laa dem école Amadou Diaw. école Amadou Diaw bii. école 1.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

Ah, dem jaale dem jaale baax na dem ci bâche baax na waaye ba ni falu maire kenn falul imam ab maire la doon fal waaye falul imam falul kuy dem ci ay du falul kuy dem di jaale loolu danoo soxla kuy liggéey Kébémer gi Kébémer dem simb sax folion folion moom sax ndax folion Sénégal mom ni pc tous les le balafon le lion rouge arrive mais c'est pas le folion dama ni dëkk bi il faut nous xamni nos noo ko bokk nu àndandoo liggéey ndoo maa ngi maa ngi défier bépp Kébémer waa moo mës a wax ça fait douze ans fan ngeen mës a gis ab chinois ba ab japonais ba ab libanais ba ab tubaab dugg ci Kébémer mi dem leen seet si xool yéen nan ngeen nekk baa nu jàppale leen fan ngeen mës a toog fan ngeen mës a toog seetaan télé rajo soleil observateur populaire mu leen monsieur le maire de Kébémer ma ngay indi ay partenaires kañ ngeen gëj a gis kañ ngeen gëj a gis waxuma la sax tali bu ñuy defar waaye camion latérite buñ ci sotti non buñ wax bàq ya bàq ya fa laa mujjee dem ba ma demee ca bàq ya dama la la ngeen a fa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 maa ngi indi kaani gi ak xorom gi ak poobar ma daal jéngu na maa ngi leen di xamal daal ngeen jigéen ñi am na réunion boo xam ne def nañ ko ñàkkul ni seen jigéen ñi nga xam ne teewoon ca réunion bi dinañ ko jottali na ngeen gën a taxaw gën liggéey gën a jàpp te ngeen yaatal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 féewaloo gi nga xam ni daf ñuy yàqal lin jëm yombul lin jëm yombul te lu nekk ci àdduna bala nga kaay yëkkati di ci woote wàllu da nga koy jéem a yëkkati yow pare ba xool yow lan nga ci mën te nun APR nun la yeneen parti yi di seet su fekkee nun ànduñu suñu biir bu dee jubóowuñu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

ku nekk mu ngi doon wax naan usmaan Nangam Ousmane lii Ousmane Lële Ousmane Massamba Ousmane Mademba ba sax am na ñoo xam ne sax yaakaar na ni yëf yi jeex déggatuma sama tur ci communiqué déggatu kenn envoyé convitation kenn neewatuma euh, kaay kaay parrainé kenn neewatul nii gars yi yanu seen i bagage téléphone ñii wooteetunu waaye man xam naa ni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 waaye cëru Kébémer te dinaa ko taxawee taxawaay gu mat sëkk bu man waa Kébémer ñoo ngi sa wet te bépp doomu Kébémer bu nga xam ne yaakaar naa ni yaakaar naa ni mën nga séddale kafe di nga ko fa seddalee <laughs> waaw du leen yaakaar ni ku ma yaakaar ni. sax mën ngaa ree ñu neex ah. te su ma la xoolee nga reema ah. di nga ñëw reema ah.